Thank you. Babacar la ak Boucar ak Mouhamed ak Talla Ndiaye ñu jàkkaarloog Wouly 2 le 13 avril lay bëre fii stade Iba Mar Diop mook ambulance bu Thiès def na open press am gis ngeen lim fi jot a def ñu ngi lay ziar mbër. waaw damay sant yàlla di wax asalaamaaleykum maa ngi sant yàlla avant tout damay jéglu waa koñ bi yëpp xam nga di jéglu sama suñu waa kër gi ma dëkk xam nga xam ne solo naa leen trop mbër ba amee combat ay dëkkandoom ñooy jëkka son maa ngi ñëpp xam nga di baalu ñëpp ak di ne li làmb la rek xam nga bu jeexee rek jeex na waaw bu loolu weesoo maa ngi baal wax waa koñ bi yëpp dina jégal ne sama combat le treize na ñëw ñëw Medina gi yëpp ñëw wóoy si ma ma dem stade ci jàmm ñib si jàmm am ndam jàmm incha allah yàlla defal ma jàmm waaw bu loolu weesoo di santaat sama mbokki mbër yi teew fii yëpp xam nga ma limee dinaa jum nag gars yi moom macha allah te ji xam nga tey laa leen woo ñoom ñëpp wax dañu jox ma cër daan ñëw xëy na maa gën nag xale ci ñoom mais xëy na xëy na nu ma mel ak ñoom a tax ku ma ci woo la mbër dama am open press ci bi di ko teg seen loxo seen suñu grand njaaxum di sant njaaxum bu wër di sant booy bool mu ngi ñu doog a xam nga amu feem sama xarit la waaw. problème bi mooy wulli ñi ngay woo ñëpp ñu ngi lay dégg ñu ngi lay seetaan mais problème bi mooy yow li ma lay jëkk a laaj mooy bi ngay mujjee Iba Mar xam nga loo fa génne woon. bi may mujjee Iba Mar victoire laa fa génne woon. maak trompeur xam naa la may xaaraat te ci kattanu yàlla dinaa andiwaat victoire bu soobee yàlla lay neex maa koy waaye bu taxawee dëggal boppam bu ñu xeexee ma duma ko bu ma daan ko ci kattanu yàlla ak mbaaxam. mel ni mbër mi ngay bëreel ambulance. xam nañ ko ci mën a bëre xam nañ ko ci am maanaam mbër mu maanaam mu am entraînement mu nangoo sonn ci bés est ce que xam nga ne adversaire de taille nga am. waaw di santaat sama entraîneur Fallou Ngom dafa bàyyi itam ñëw fii xam nga aw ma fayam sama di sant sama staff di bu baax tey jii mu nga bene di ma seetaan Cheikh Diouf. yow yaa ngi ambulance ku dàq bëre. ambulance maa ko dàq bëre. foo teg loolu. non li def ambulance maa ko a bëre. damaa bëgg nga ne fii laa ko teg. man ci ñii laa jàng a bëree ñoom jaaxuma ñii mbay man dama mën a bëree ma teg sama bopp mais ci kattanu yàlla bu ñu xeexee dina wax duma bu ñu bëree naa ko daan incha allahu rabbi. teg ne bu nga daan bu ngeen xeexee nga daan ko. non man nii laa yàgg a mel nii laa yàgg sama depuis sama petit combat nii laa mel man si naturel waaw man awma nu may sensé man moom xaw ma kenn xaw ma ci loxal man noonu laa mel ni may waxee nu laay bëree bu soobee yàlla ba bu suulee dinaa ko duma dinaa ko daan bu xeexee ñu taxaw ñu xeex rek ma wàcce ko moom dama ko dégg nee na yow da ko doon maanaam da nga doon daw wiiri wiiri far nga jaari ndaar nee na yegg parce que moom mooy ndaar yi non day wax lu ko neex ambulance depuis 300 mu ngi may daw man nee daw mu ngi fi waaw muy jéem a mbojo mbojo a Sénégal non ambulance li daw mu ngi fi ambulance depuis 4 ans ñu ngi doon muy daw naan Assane Ndiaye ma yóbbu États-Unis Assane Ndiaye ba may ma États-Unis ma dem États-Unis ñëw ñu bëgg a bëri mu naan daw mu nga fa la ma jàng ci moom laa koy ci kattanu yàlla. yow nga yaakaar da laa ragal kon. non mais tapete parce que xam nga ne xale bu mel ni Wildo doo ñëw leen da jël ko. Ah. dina ko seetaat. est-ce que nii ngay waxe nii est-ce que États-Unis bi nga ne jëlee nga fa doole ju war a mën a ambulance bi nga xam ne mu ngi kajoor gi di entraîné. yaa ngi ma xool xam nga ne bi état boo gisee xam ne liggéey naa yàlla nag moo yor ndam mais bu dee coono rek ñi may àndal ñi may contact xam nañu man sonn naa ci combat bi. ambulance xam nga ne bébé jéen ñi booy kuy contact ñoom ambulance mënu laa yëngal ci kattan yàlla bu ñu wéree bëri rek du am dara incha bu ngeen waree xeex bu ñu waree xeex moom ci lay gën a neexa yu yee am yu mooy lan man de bu lii am teleng yu xam nga waa États-Unis ma waxee am teleng xam ne may wax quoi you know am seen maanaam tey yow est-ce que yaa victoire fi mu la mën a yóbbu non ci kattanu yàlla xam nga di Canaar sama président eh, fans club bi Canaar xam nga aw ma faye moom itam sonn na trop ci yëf yi booy bi Canaar victoire li mën a yóbbu xam naa ko fi mu mën a yóbbu xam naa ko yaa ngi dégg ma yi xam nga maa ngi dégg wax mais garaawul non jarul ñu si yegg ay détails la incha allah ba pare mais ci kattan yàlla lamb ji lu mu laaj dinaa ko def bu waa bi suuf leen suuf suñuy tànk maam moom lu mu andi man ma xam man man am naa mosul dem ardu yaakaar naa man li ma dem ardu sama kanam gi xool ko dama indis man ma may cicatrice lamba tax man dama naaj bu moo tuma naaj barke Cheikh Fall. di bu war bi suuf leen da nga ko xaar wala da nga def di nuyu sama Fall ñaanal combat bi la samedi la ñaanal ma daan waa ji ñëw seet si la Touba ci kattan yàlla nuyu Baye Fall yëpp nag waa Touba waa Tivaouane Kaolack Ndiassane baw ma fenn. bu arbitre bi sifflé damay yëgul sama grand yi man am naa estaf mais man li ma entraîné man dinaa ko def mais man dama am estaf dama am ay grand yu yóbbu ñoom jaax ma ñi ñu nga fa. boobu suulee lu mu laaj man dinaa ko def mais en tout cas ndam laa bëgg te incha allah ndam waaw. su ma la laajee boo xoolee écrit bawol bi nga bokk bi ngeen ubbee defe naa grand combat bi ngeen jot a bëre ren da ngeen ko ñàkk muy ak ki nga mooy Boursin est-ce que loolu tey du nekk pression si yow waaw du nuyu Boursin sama doomu ndey di ko encouragé Boursin du nuyu Baylaat Diouf Daay ngi jàpp ci combat bi non pardon waaw loolu mënul ñàkk parce que booy di jàpp samay affaire Boursin sama doomu ndey la xam naa combat bi sonn na ci mais mama la di ko nax mais nag loolu garaawul moom Lamine du am pression Bour Sine nañu no problème Bour bu doon am pression du entraînement man am pression ci loolu am ko Bour Sine mi ko fàtte kon kon rawatina man Ndeye Mbil ji Bour loolu mu ngi ci leneen instant yi combat la boo pour bëre fi nii wu yàlla xam na dina pression ci man am na leneen lu ma seetlu tamit waa Thiès dafa mel ni ñoo mujj seen kaw parce que boo xoolee laay goote daan na fi mbay guy gi non laay goote daan mbay guy gi mais loolu ab la mbay guy gi dafa gaañu woon xam nga ah, ah xaw ma nu mu demee non waaw loolu yàllaa ko def am na. nañ parce que Thiès nag dañoo mën a bëre de dafa mel ni. mën nañoo bëre mais ñun waaree fan la ñu waaree fan la ñu yow ñun ñun ñun namuñu waar ñun namuñu waa cees pour ci bëre. Mbaye Diouf fay sunu mag ak Tapha Tine ak Mame Gor Diouf you know namuñu loolu. waaw barke Serap Fall. ambiance it mën nañ ko lool maa ngi la gis ngay fecc sànq ba tey waaye ñoom dafa mel ni Thiès ambiance kenn du leen ci dab de wala. mais gis nga li ma andi du ma ba dara bépp bool bool bu doon dooy bool boo ñëwee esaat di nga gis lu bees tex gis na li ñu andi fii lu bees tex lu ñu dajagul ci paquet ci kattanu yàlla ku ñëw esaat di nga gis lu bees tex di wax ASC Médina nag ñëw nag di lay war a sóoli ñëw nag samedi ngir yàlla ñëw fee esaat bi waa Thiès ñu duma leen daal la ñëw fii feete victoire bi nag fii Rue 25 waaw. es ce que laajoon naa ko mbay gi naa la ko laajaat est-ce que Woulido mu ngi sóoraale Mapa. non Mapa Mapa sunu grand la Mapa. ñu ko yaa ngi koy laa wax lundi ba. vraiment may bëri ma ba ma Mapa xel nag vraiment instant yi boo ma dinaa ko sóoraale bu baax dinaa déglu luy vocal am dégg naa li may wax lépp mais nag baax na maa ngi ko bu baax mais nag garaawul ba mu xel sax parce que yokk ay ay pression quoi yaa ma gën a xam ma ñi ñi lay suivre loo leen di tàggoo mbokk anglais parce que dama lay déglee ngay bër ay ay ay anglais rek xaw ma nu mu demee noonu waaw di wax waa États-Unis yëpp waaw I'm here Sénégal you know I'm saying <laughs> everything good everything good everything good my bro I wanna see see you I wanna see you Thank you very much, my bro. Thank you, thank you, thank you.